waaw gis nga euh, li ñu war a jëkk rafetlu mooy euh, le chef de l'État dafa dem jël 200 mille doses jënd ko ak alalu Sénégal pourtant am na ay mbootaay yu ñu bokk yoo xam ni ñëpp Afrique yëpp dañ ci bokk pour ñuy xaar vaccin yooyu ñu ñëw mais xaar ko pour bañ délai boobu tardel Sénégal yi le président public a pris sur lui dem jënd ci alalu Sénégal sunu alal 200 000 vaccins ce qui nit ñi wara, wara, wara, hamla se mu et sur les 54 pays africains je crois c'est 54 7 ont commencé commencé vacciner Sénégal lañ lolo lu pour nit ñi jël en considération nous en tant que maire nous sensibiliser nous nous ngi sensibiliser bu jàppale jotee nous ngi nous Nous ngi wër nous wax ñu nous masques nous ngi expliquer mais tey man dama foog ne bu vaccin yi jotee aussi te ñii di jeexi jaaxa ñi naan baax na baaxul dafa war dafa dafa jaadu ñu ñi nga xamee ne ñun la population yi euh, jiital ñu jël ay initiative yu mel nii man lii ma fas yéene def incha allahu rabbi euh, mardi incha allah bu ñuy ñàkk nit ñi à 10 au ministère au ministère de la santé man mii li ñuy jëkk ñàkk bu soobee yàlla ñu ñàkkee ministre bi man daañ ma ñàkk euh, li ma ko duggee nag mooy ñu xam ne jàmm rekk moo ci nekk parce que feebar boo xam ne bi doo ko gis bët du ko gis nopp du ko dégg ba kenn du ko xeeñtu fa mu nekk la nekk te ñun ñoo koy jëlee di ko andi ci nit yi te amul dara lu ko mën a faj lu dul mesure barrière yi te ñu ngi ciy wax li ñu mën a wax li ci des rek mooy comme yeneen épidémie yi bu ma saan am scientifique yi dañuy trouvé vaccin boo xam ne bi dafay tax yëf yi ñu faagaagal ko comme vaccin rek moo fi nekk pour faagaagal ko

parce que science bi dafa dafa développer évoluer lool donc vaccin bo xamni ne dañ ko waroon traiter ci deux ans trois ans bu le né légui def nañ ko ci 1 an war nañ ko mën gëm ndax science bi mo mo mo moo avancé donc vraiment un appel que je lance à tous les ñi dëkk ak man ci gox bi Gueule Tapée Fass au delà de Gueule Tapée Fass je m'adresse à tous les Sénégalais amuñu solution ci fièvre bi lu vaccin mesure barrière diko moytu xëy na nag keneen andil lako mais li nga xamee ne moom rek mu ñu ci mën a aar benn benn benn bal bi nga xamee ne moo ko mën a dal mu wàcc ñu mooy vaccin yi te yàlla nañu vaccin yi jékk loolu mooy message bi ma bëggoon lancer population yi ñu góorgóorlu ci loolu